li nga xam ne moo di euh, marché Sandaga bi hmm. ñu jëloon dogal ne danu koy daaneel parce que marché bi dafa mab ba noppi gis nañu fi lu yàggul dara benn taax fii ci biir Ndakaaru en plein centre ville euh, bu bëccëg ndar kàmm mab est-ce que sax loolu waralul ñu gën a gaaw euh, génnee rapport boobu wane ne te te lu ci gën a bëri sax taax yi bañ leen waree daaneel yàgg na waaye dañuy seetaan ba Euh, mbir mi euh, jur jéeye ñu door a jóg est-ce que loolu itam jàpp gis nga marché Sandaga bi déjà délai bi ñu waxoon repoussé nañ ko. Mhm. Euh, loolu parce que pression. pression voilà pression sociale bi dafa bëri. Mhm. mais je crois que lii ñu wane nii sa élément bi stade amitié stade Léopold Senghor lu waroon am la. Mhm. man je me rappelle ça fait plusieurs mois. joxe nañ date ah, benn lundi ne dañ leen di. xom benn week-end dañ leen di donc je crois que ça date de longtemps depuis plusieurs mois ñoom waroon nañoo xaar à tout moment que dinañ ñëw yëkkati leen. Mm-hmm. loolu vraiment c'est un fait. Mm-hmm. te xam nga boo gisee ñu am yaakaar que nii mën na continuer. Mm-hmm. mooy autorité bi la haute autorité le gouvernement euh, en la personne du ministre Abdou Karim Fofana ñoom ñooy ñooy def mbir mi xam nga tant que c'était les maires yi souvent mënoon na am benn conflit entre ñoom ak parce que je le disais si benn plateau je sais ndax fii la souvent bu fekkee maire bi moo jël décision bi gars yi mën nañoo dem au niveau du ministre au niveau truc surtout bu fekkee nag maire bi bokkul ak ñoom parti dafa pression boo xam ni ëllëg mën nañ ko bàyyi euh, mu libre ba xam dem mais cette fois-ci vraiment autorité yi à commencer déjà par le président Macky Sall par rapport ak journée xaw ma semaine nationale de la propriété euh, euh, indication yi mu joxe euh, Abdou Karim Fofana nekk ci liggéey am nañ yaakaar da dem maintenant il faut pas que ñu yem nag si ñi nga xam dañoo new doole parce que gis nga nit ñaa ngi commencé lam-laame sax au niveau des des des parkings tudduma kenn euh, nga xam ne léegi à Dakar il y a que des parkings vente euh, vente de véhicules partout espace bu ñu am rek gars yi implanté nañu bâche ko def ko vente vente de de kii véhicule. ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, parking yi ñoom. voilà voilà xaalis bu bëri la ñuy dugal mais mais ñu dugal la mais par rapport même par rapport même euh, di di disons aménagement ville bi aménagement ville bi dafa am problème. parce que li tax li tax aménagement ville bi am problème mooy que ni da ngay xool souvent dañuy nekk ay carrefour yoo xam ne sax pour oto yi gisante problème la. souvent boo nekkee à l'angle pour nga gis beneen oto parce que ils occupent ay carrefour ah gis nga partout un peu à Dakar looloo mujj am je crois que donc am na solo que bu ñu yëkkati nañu yëkkati ñëpp par rapport à l'intérêt général c'est important beneen mbir mi aussi tamit mooy affaire bi dafa nekk structurel c'est devenu structurel parce que souvent wax nga ko exode rural bi ak ñu bëri ñi jóge ci àll bi di ñëw léegi bëri nañu dakaar ba nga xam ni pour nga ne leen nii nga leen organiser du yomb tant que organiser wuñu économie bi hors de Dakar dimbali jeunes yi nit ñi les adultes et tout le monde ñi nga xam ne ñi ngi ci région yi ñu mën a toog foofu parce que am nañ koom-koom bu leen mën a téye tant que demewul noonu Dakar day continuer gis nga à chaque fois xoolal rek affaire embouteillage à chaque fois qu'on investit autant de milliards depuis Abdou Diouf ba ci Ablaye Wade en passant par Ablaye Wade Macky Sall li ñu investir ci ay milliards ci infrastructure routière à Dakar mais c'est des milliards et des milliards alors que aujourd'hui à chaque fois bu ñu defee rek au bout d'une année loolu indiwaat problème je crois que maintenant la réponse c'est que nu ñu mën a fexee ba dimbali nit ñi ñu toog seen dëkk. ah loolu nag du yomb. non mais loolu nag moom mooy solution bi parce que Dakar am na exode boobu boo xam ni féex na xam nga nit ñi boolewuñu exode rural. kii bi géographique nii tawul. àll bi tawul. ah là là ça va être pire ça va pire te xam nga taw bi wax naa ko nii les conséquences. seron seront graves pour la capitale sénégalaise. parce que solution yi nekkul rek culture yi mhm. euh, disons à court terme mhm. les courtes cultures là comme on dit mhm. parce que yooyu ñebbe lay concerné ak yooyu mais gerte gi euh, gerte gi ak mboq mi par ak mboq mi la concerné mais gerte beeg dugub bi bu tawul day indi problème ñu ko régler très bien donc je crois que aujourd'hui c'est des solutions structurelles yu ñu war a jël dans les régions pour permettre aux Sénégalais de rester chez eux en dehors de la pluie hein <laughs> <laughs> am na leen lu mu laal lu am solo mooy nañu yemale ci déguerpissement yi ah bu ñuul rek bàyyi néew di doole yi ak informel yi nga xam ne xëy na boo lëgee day mettre que deux poids et deux mesures parce que dafa am lu ma seetlu dafa am benn société bu fi installé woon ay place u ndékkikaay ak lekkukaay xaw ma nu mu tuddati woon sax euh, gis naa ko euh, non non non ci biir Ndakaaru partout Euh, ah ok ouais, ouais, je cherche le nom ah, j'oublie le nom ouais. Euh, peu à Sacré-Cœur. ah waaw waxal tur bi nga jox wax ko. Sacré-Cœur un tangus euh, tangus waaw tangus dama seetlu ni que ñoom on leur a pourtant cherché des places privilégiées partout dans Dakar. waaw mais doxul. attends waaw xam nga à l'époque amal nañ leen place yu privilégiées. ndax xëj na ñoo xam ne la xaw ma ñan la waaye seeni loxo gudd na ba ñu ba ñu wutal leen place waaye ba mu doxatulee kenn tasagul tàngus yi dama romb benn tàngus ci deux voies yi nga xam ne ñooy deux voies liberté six di dem ci pont bi nga xam ne mooy pont yu VDN bi mais ma gis tàngus bi lañ fa def ci ay xujur xajar ci ay ëmb ci ay bagages ci ay xawma ful ku fay stocké kan moo fay stocké ay ay ay mais mais mais c'est devenu mais donc moi je dis que aujourd'hui ce que tu m'as dit c'est ça m'a fait tilt parce que je suis passé devant cet angus là et devant d'autres mm-hmm. je me suis di mais mais au fait mais il a un problème donc tey bu ñuy dem bu ñuy pir ak bu ñuy aménager nañu yemale mm-hmm. néew di doole yi ak ñi nga xam ne askan wi la mooy le peuple le lam da yi nga xam ne yaakaarul am daal yaakaarul ma Samba yaakaarul ma dem <laughs>